la ca di saatit mooy li mu waxoon ne bëggatu ko fee dégg mooy di saafaraal sa bopp loolu itam ñu ngi koy feddliwaat bu baax kon moom moo mën a dox suñ diggantee jafe-jafe àdduna kon lu nit bëggate ak nu mën a demee rek na feex ba mu agsi sëriñ bi te sëriñ bi kat waxoon naa ko ca màggalu poroxaan ga mu fattaxatan lahumul abwaab la jëmb la joo xam ne ubbalut ay buntam kenn fu waaye jóge rek boo agsee dana la diglu أكو من أدرو تدان لا جوخ تي وقت لو خامني بو غاتم خيل لي بايو سيرين بي باي شيخ محمود منتها يالا ديفنا كيليفا لا غوخاني كيليفا غو ما سكلام دون لا كون لول نوكو جيب باي خيل يالا ديفيت توفيق تي موم ndax képp ku fi ma si nekk Serigne Touba rek tërbiyé wu na ba làq sa ngiram nam daan doxee doxee moom noonu te yàlla defal na ko ci tawfeex ñëpp noonu la ñuy doxee moom. dadaa wax ne sama kilifa dama koy bàyyeek sama jëmm dama koy dama koy bàyyeeg sama jëm bàyyi ko jëmmam kon nag loolu ñun ñëpp nañu fas yéene ànd moom noonu ngir xam ne ku ko xam ci yërmaane ji mu am ci jullit yi sax laay wax am ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa googu kilifa ku ko yàlla defal war nga gën a daloom xel. تقول إني أنا وقت ونيك مياج في تاندغير غير خامنئ مم لبلو خانة وارنا كورك خامنئ كتادنو كورف نخ بتشيشو مجهو تامبوليبا لم تجيك واخ بتشو مجهو جان كادرلا دفعوا خانة جانغورجي بنديف ميالا واتشي كوسوفلا وقت وخ جيه خلير مجه نينا سنغال تامو bañ amee Serigne Touba rek la am jàmm kon moom lépp lu ngeen gis mu def ko rek wane aw yoon la ci jublu waaye moom xam na ni ku xam diggam ak boromam la ku xam diggam ak Serigne Touba lépp lu ngeen def ko mu mu ci ci saaxiir si rek daa bëgg a wane aw yoon te ku jiite dangaa war a wane nit ñi fa ñu jaar moo tax yii nag lépp lu ci xew rek def na ca la war a def taxaw na ca la mu war a taxawi ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgut bu nit ñi doon xam li muy daj ci yërmande ci digg ma soxla nit ñi ñëpp seen xel dana gën a dal ndax li ngeen ci xam li ngeen ci xamutu kopp kon la Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadil daa wax rek bi muy ñaanal Cheikh Serigne Saliou Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtala ak soxna May daa waxoon ne seelukat xamut li xaddi di dajeg ba ba ba ndox mi ak siw ci moom kon ñun itam nañ xam ne li tax tàngoor ak ci ñun gat Cheikh Mouhamadou Mountakha tax kon na yàlla na fi yàgg tànde gur wér wax na ma it nag ne mi ngi jot li taalibe yi ak cant ak ngërëm ndax xam na ne moom bëgg-bëggam bépp génn Serigne Touba loolu itam lu ko ñor la dane man nag ma santal ñi ma bokkal Serigne Touba ndax liggéey Serigne Touba bi kat. ñoom ñëpp maase nañ ci xam ne ku ci ne la ma yéene sama bopp laa la yéene waaye ñoom ñëpp itam ànd nañoo man àndin woo xam ne kenn ku ci ne xam naa la nga yéene sa la nga ma yéene yéene woo ko sa bopp ñaan loolu yëg na ko. yitteem jëpp mooy lu leen aar ak lu leen sàmm ak yërmaande jum dox diggéem ak ñoom nee itam mi ngi leen di sant bu baax lépp lu ngeen dégg mu wax leen ko da leen a bëgg dimbali te nit boo ko bëggee dimbali da nga koy wax dëgg waaye nag nee na sant na leen bu baax gërëm na leen. ndax cant gi ngërëm li mooy daaw li ci mujjaat itam mooy barki démb bi nga xamee ne xew-xew yi dëkk yi xew ci dëkk bi xew na ndax booba itam lépp xam na ni mu demee ndax junjee na ko boppam leeral na ko kon jëru del siwaat waaye ba mu kàddoom kenn ku ci la nga doon def da ko bàyyi wëlbatiku la la woon nga def ko muy loola neex nee na lool na xam na ko kon nag mi ngi leen ñaanal ci loolu yi nga xam ne fu ngeen déggee ndigalam xam na lu leen di jariñ la ngeen bàyyi la ngeen jàppoon Serigne Touba mi tax ngeen di jëf loolu yàlla na leen ci defal tawféex te xam ne Serigne Touba waxoon na ne waxtu ma sante def day am du ànd ak moom bu jëfee ndigal la mu dëkk moom mu ne waaye bu jëfewu ndigal nag day dellu ci man di ma xamal ne dem naa waaye awma fu ma ne kon jëfe ndigal am solo kon nag la ca des nee na xam na ne Serigne Touba dafa woote. wax ne yaa ahla barri yaa ahla bahri hon joli bari bari soxaay bi mu wootee nag ñëpp a ñëw bi mu wootee ñëpp a ñëw ku ne nag fa nga jóge dangaa gàddaay indaale la nga yor looloo waral kon dëkk bi bindoo ni mu bindoo waaye loolu lépp itam nañ xam ne fu Sëriñ Tuuba boo amutoon dëkk bi saa su xëyee nit dana faatu waaye fàggu gi mu fàggu loolu te dëppoo ci boromam moo tax suñu borom may ko loolu nim la nim ñu faggul faggule kaaraange rek wax ne wan fi ba wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha looloo waral mbas mii fi xew ni ko sëriñ bi santaane damay wax ne butul woon ak li ko ñu jiite réew mi santaane itam Cheikh Mouhamadou Mountakha du yëkkati lu tollee deux cent millions di ko def ci loo xam ne ay nax la kon bu toon dara itam boo ko sëriñ bi santaane rek ñëpp dañu ko war a def kon waaye jàngoro ji ku dugg ci biir dëkk bi gis ni dëkk bindoo xam ni mu bindoo da nga xam ne sëriñ Tuubaa aar na li ci loolu kenn natt ko ndax boo xoolee ndakaaru euh, lim ëppee Tuubaa bariwut te boo xoolee jàngoro ji doon na fa ay yoon yoon loo xam ne moo ëpp kon loolu lépp ñoo xam ne pàgguteef sëriñ Tuubaa bu dëkk bi la kon loolu itam nañ koy sant yàlla te yamalu ala daawuda shukran li ñuy fayee sëriñ Touba nag mooy jug jëm ci moom kon nag sëriñ bi neen mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali itam nawet bi mi ngi dugg si te daaw xamee xam ngeen bi mu jubsee lim santaane woon ba ñu feexa ba dëkk bi gën a set feexa ba gën a sekkar ci tio yi yooyu yëpp itam na mu ko defe woon euh, Serigne Cheikh Abdou moo ko taxaw woon daaw ren jiitam balaa nawet bi ñu góor góor góorgóorluwaat ci fexe ba nañ ko defoon ànd koog njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ci njëbo ci njiitale Serigne Cheikh jëmb mi nga xam ne moom la